léegi nag ña dekk màkk di ñaan la yàllay wax ak ñaareel ña nekk màkk di ñaan ñaari xaaj lañ am na ki ñoom koo xam ne ajam nga bis bu demee ba jàkkaarloo kaaba ga la muy ñaan lépp génnul mbiram àdduna yàlla ne boobu doxut am na koo xam ne nag bu demee ba màkk di ñaan àdduna de waaye du fàtte àllaaxira yàlla ne boobu laa d'accord ñaar yëpp ñaan ko waaye dem ba màkka ni dem màkka jafe yàlla may la loo xam ne xarab xolab julit boo kar fekk ko ca mu xeñ ko ñu bari jox la ko nga nekk fa amoo dara loo ñaan àdduna rek yow yàlla may ma kër yow yàlla may ma ñu embauché ma yow yàlla may ma ay milliards yow yàlla may ma ay soxna yow yàlla may ma ay doom may ma nangam ak nangam yooyu yëpp daax na waaye doyut waaye da nga caa war a dolli yow yàlla yàlla nga dëgëral yàlla nga dolli sama gëm yàlla nga ma rey ci imaan rey ma ci lislaam yàlla nga ma may caf nga ak jaamu yàlla yàlla nga ma may leer ak alquran ñaan ñaan yooya yàlla nee na kooka laa ànd ak mais àdduna kese ku ko ñaan yàqule ga ndax amul sol moom lay wax si ni ña ñaan àdduna rek nee nag maanaam fa min naasi am na nit ña man ñoo xam ne buñ demee màkk yaqulu dañuy wax ne rabbana yow suñ borom aatinaa yàlla nga ñu dikkee fi duniyaa ci àdduna kese loo ko waaye nag wamaa lahoo déddi ñeexal kooka wamaa lahoo mbir moomu di ñeexal kiy ñaan àdduna kese fil axira ci àllaaxira min xalaaqin ci benn cër bu àllaaxira du fa benn cër parce que àdduna dong la doon ñaan man yàlla defal naa ko ko te loola wax na ko ci yeneen aaya man kaana yuridul ajilata ajjalnaa lahu fiha ma nashaa'u liman nuridu waaye nag wa man araadal axirata wa sa'a laha sa'yaha ba muy dem nag foofa kooka sa'yuhu mashkuran la laay jay daane seen jëf dafay nekk lu yàlla gërëm sant lay doon kon nag kuy dem ñaanal hadduna waaye ñaanal àllaaxira yonent bi nee na hadduna sax bul fàttee ñaan ba xorom ci sa soxna yi xoromee sax bu ko fàtte xorom moomu ngay xeeb wallaahi bu amutoon dana bëri ci ñuñ delloo kon mu ne xorom sax bu ko fàtte xaaj ba lay wax ñoo xam ne ñoom nag buñ demee duñ fàtte adduna duñ fàtte àllaaxira ñoo nga ñoo jara ñoo jara yónnee ñaan yàlla ne wa minhum am na ca ñoom man ñoo xam ne buñ demee màkka naa yow suñu borom aatinaa yàlla nga ñu jox fi duniyaa ci àdduna xasanatan xéewal waaye nag wa yàlla nga ñu jox fil axirat ci àllaaxira xasanatan aljana wa kin naa yàlla nga ñu fegal azaaba naari mbugalam safara yàlla ne ñooñu nag mooy ñi nga xam ne ulaayka yooye gaay lahum aji nekk la ñaan leen nasibun payoor mimma kasaboo ngir liñ fàggu wallaahu yàlla sariixul xisaabi ku gaaw la mu ci rek jaamam yi da ko mattalee aaya ji kon yàlla ngóog mu ne moom ñim ànd ak mooy ñoo xam ne dañ ñaan àdduna ñaan àllaaxira waaye ñooy ñaan àdduna ab kese ñooñu lu rek la ñuy xam danaa leen ko gaaweel rek ñu perte waaye nag ñii ñaan àdduna ak àllaaxira danañ xam lañ bëgg ci àdduna boo lëggee timit ñi am payoor ak àllaaxira